Macky ciy tappale la ne Macky mooma yéenekaay bi gis ni daa janook ñëpp seul contre tous l'info ne dialogue am ba de bu mayiwu li dana wéet ndax boycott la ca gaayi woote fukki candidat juróom-benn ci fukk juróom-ñeent yi conseil constitutionnel ne ñoo war a bokk ci élection yi ñoom ñëpp yéenekaay bi ni gàntal nanu wooteek Macky Sall Sud Quotidien it booba xibaar la joxe ne aar sunu élection booba taxawaay la am niki forum civil ak Aminata Touré ñoom ñëpp neenu Macky Sall dialogue wunook yow jàppal dat tëgg élection yi FC 25 ci vox populi di sàkk ci njiitu réew mi mu joxe datu élection yi Boubacar Camara njëkk caa yëkkati kàddu ne li ñuy sàkku exigence sax la nag mooy nañu jàpp dat lataa ñaari fan avril sumb processus électoral tëgg élection yi Déthié Fall ne Macky bu waxut ñun xaw kan lay waxal ma ngay fàttali njiitu réew ca booba lépp ne ñi mën a waxal ñenn la mooy fukki candidat ak juróom-ñeent yi conseil constitutionnel ne ñoo mën a bokk ci élection yi te ñoom ña ëpp di fukk juróom benn ya neen demunu professeur tranché yéeni kaay wi laaj ndax dialogue bi njiitu réew Macky Sall woote te wéekoon ca lu bare bari daa tàmbalee naax saay la ko waral yéeni kaay baa ngay lim kuréelu société civile yu sakkan lool yu ne fas yéene wunoo dem ca boobaleb dialogue journal bi ne Macky ñi ko dese mu mën a yaakaar ca ñoom mooy front démocratique pour une élection inclusive candidat Amadou Ba ak Benno Bokk Yaakaar Thierno Alassane Sall di candidat ca boobaleb élection yi ci njiitu réew mi di jeexal mandaawam Thierno bu l'observateur gisalul yoon dialogue sans voix la yéenekaay bi wax ci xëtam gu njëkk journal bi ne Macky gën a xam ne consensus du am waaye liñ naan bataille de l'opinion maanaam li nit ñiy gis fi mu ne lay lijjanti El Hadj Kassé ministre conseiller naan faaw nag nit ñi am courage u ak lépp lu mën a dox seen diggante maanaam lépp lu leen mën a wutale candidat ye conseil constitutionnel ne mën nañoo bokk fukk ak juróom benn yene booba dialogue de dañ koy wuute ndax duñ ca teew société civile beeg noo na li ñe itam kaay bi ne loolu lañ wax Le Quotidien ne Macky kay fim ne bañ la janool a bi ca Sicap L'Évidence ne ñam nar a mooy Amadou Ba Idrissa Seck ak Boun Abdallah Le Regard moom gis ne Macky daan nara wéet lool ca taabalu dialogue ba mu woote lii quotidien ne Macky Sall waaye lu waay mën a wax fi ne mooy wéy di doon maître du jeu le ne Macky bi noonu la yëgalee ne ñaar téeméeri kuréel yu bokk ci société bi ci wàll bu ne gàntal nañu woote Macky bi ni ko fukk juróom-benn ci fukki candidat juróom-ñeent yi gàntalee yéenekaay bi ne li ci gën a garaaw nag fi ne mooy bañ gi sax yematut ci opposition bi ak société civile bi ndax élection yi di sàkk ñu jàpp dat buñ jut génnee ci dale yi conseil constitutionnel rëdd bëgg nañu itam candidat giñ tànnoon muy Amadou Ba ñu gën koo dooleel gën koo dëggal Dakar Times su ne liy dëgg ci ñàkk wuy ji dialogue bi am altine mooy ñu baree bari ci candidat yi libération Ousmane Sonko ca boppam lan àndut loola lanu ragal bañ ko moo waral Macky woote ñu bañ ba tëdd ca naaj ba direct news sax xëy ci ñi bañ ak ñi nangu yéene bu tuddee ko la grand bi ñi ànd yéenekaay bi fësal fekk na réew mi ne Anta Babacar la woote woon a a ca vox populi waaye daanaka sottiwut ndax takk der yaa ko dab dóor koy grenade lacrymogène ca booba lépp journal aar sunu élection ma nga yëgle ne dimanche ñaar fukki fan juróom weeru février di bés bi élection présidentielle bi waroon a am ñoom daanu amal xeetub élection maanaam 11 heures ba 13 daanu mel ne ñu war a wote àddina yëpp xam ne tey la sénégalais yi amoon sañ-sañu tànn seen njiitu réew Macky Sall xañ leen ka a wote taxaw fa a yi doon defante keroog ak juge Mamadou Seck mi mandat de dépôt seen naataango Ngagne Demba ñoom la UMS di dal ci seen kaw ci yéene kaay yu bari ca enquête UMS a ngay ŋàññ yooyale greffier laas ne union des magistrats du Sénégal kay tegaat na greffier ci seenu ànd ñaawlu la dox seen diggante ak juge ba Mamadou Seck ak greffier ya te ne la greffier ya def kenn du ko bàyyi noonu mu sedd lépp lu ca war daanu deuxième cabinet waaye itam dakkal audience audience ya amicale des greffiers du Sénégal ak sudjust naan waxuma la dakkal audience waaye liggéey yi ci boppam la ñuy dakkal ci bépp tribunal feek ngañ Demba Touré teggi wuñu ko loxo ñu fekkati artu ak dànqaafuy UMS yooye ca libération ca boobaleb journal Juan Branco ngay yokku xarma dal ci kaw greffier yu Sénégal ne seen naataango moo tax ñuy wax waaye ñoom bañ leen santee ñu bokk ci liy tax détenu politique yépp dugg ci kaso bi amuñu ca xel ñaar ñoom ñépp Kër nërmelooti na ci kanamu Bocar Samba Dièye coow li dox seen diggante libération ne tribunal joxati na ca dëgg homme d'affaires bi football ca àll ba la mu indi woon néew lay bay sàkku ca Bocar Samba Dièye mu fay ko ñetti milliards yu teg mooy li ñuy laaj ngir mën a dem màkk ci atum ren ji Le Soleil dëggal ko ne loolaay njëgu paquet bi yéenekaay bi di ñu yëgal itam juróom-ñaari dogal yu ñu jël ci conseil interministériel bi njëkkle loon aju màkk gi ci atum ak juróom weeru mars bi nu dëkmal ñaar fukki fan ak juróom weeru février bésub élection ci Sénégal la bés bi di tàgge ne société civile baa ngay woote vote symbolique fas yéene itam tëggal Macky Sall pot bi ma nga ñuy xamaleeg Thierno Alassane Sall yéenekaay bi sàmm valeur yi mu làmboo moom Thierno Alassane Sall ne kër ga mu màggee yaroo ab daara la woon Thierno Alassane Sall it yéenekaay bi di wax li waral muy xeexee Macky Sall ni dikk it ci kàddu yi muy yëkkati muy discours am bi ñu baree bari wéy a nationalité le quotidien ne tëj na wax ja weddi na ba nuppi andi cay firnde booba jamono ca l'info aale xujja jaw ma ngay artu Ousmane Sonko ci loi d'amnistie bi nuy ruumandaat la ca mën a doon ngànteeg loraange sociologue baa ngi koy faram-fàccee ca boobaleb yéenekaay laas di nu yégal ca boobale waxtu ne préfet bu Ndakaaru autorisé na manifestation ñi faral Macky Sall ak ñi àndut ak moom muy pro Macky yi wooteeb ndaje ci samedi ji waaye it aar sunu élection wëlbatiku sekk waxtaan wu yaatu ak mbër mi di Zarko mi ne nanu ko woowee King Kong teg ci ne moom ni nu ko binde daa mel ni arme de guerre Jackson it booba jamono stade ma nga ñuy xamal ne ca guerre la jëm muy finaalu League Cup bi war a dox diggante Chelsea ak Liverpool dimanche bu ñetti waxtu jotee journal ba ne moom Jackson fi mu ne ji rek la tëg bët yi tëg ci Habib Diallo ak Sadio ne ñaari compteur la yuñ war a ci jongante yu war a la ñuy